asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 17 janvier 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey fa la nuy xëy yëglekaay ba nag démb ka fa xëyoon moo fa xëy siwaat tey muy Moustapha Gueye deuxième tigre de Fass tey nag dafa ñëw génn feneen ci ay combat yoo xam ne nii mu ngi mel ni tuleeg màll ci réew mi rawatina diggante Modou Lo nga xam ne mooy Ama Balde Tafa Gueye nag wax na ne lay leer ba leer daal feeg lig Nicolas mu ngi ci kaso gi moom na ñëpp jàpp ne daal combat boobu moom du am la koy tax am daal mooy lig génn ne ci biti waaye su dul loolu moom Tapha a jàpp ne ne kon boobu combat moom am bu ko sax nit xaar wala nga koy xalaat ndax nag tëggi tama mënta ànd ak kesenu loolooy mag yi waxi ki nga xam ne nii moom moo di Tapha Gueye leneen loo xam tamit wax na ko nee na muy Modou wala muy Ama jërul sax ñuy jël seen xaalis di ko yàq ci fen wala ci lu mu doon moo xam sax ay mara ndax combat bi moom balaa mën a daal li dafa génn nee itam lig ba mu nee ci combat boobu ba taxawal ko la mu bëggoon mooy teg ca ki nga xam ne nii moo di ki nga xam ne mooy Boy Niang bu dëggal ak Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye nee na combat boobu itam la ca teg finaliser ko far nag yàlla def ñu arrêté ko loolu tey moom la tafaa gi xëyiti ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko muy ñaar ñoo xam ne ni moom ku yemu xaar leen tey ci àjjuma ji muy diggante Siteu ak Papa Sow Puma bi ak Tarkinda bi tey daal la seenu jàkk jàkkaarloo yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey wax ñu ko ne tey jii daal la njëkk a yéeg si seen jàkkaarloo wax ak seeni supporters waaye tamit waxante ñoom ñaar Pape Abdou Fall nag moo jaar foofa ci ab combat waaye bi leneen loo xam ne nii daal loo ci mën a dégg ah ndax doo ndéeg réero wala ay jàppal bàyyi mooy Balla Gaye de ak mu mel ni ki daal yëglikaay bi na parce que ñii bu ñu waxee lii ñu ca des wax lee ci diggante ba ki nga xam ne moom moo di Boy Niang yëglikaay bi moo xëy ñëw di ñu ko wax leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëgle kaay bi muy ki nga xam ne nii mooy Alioune Sèye Junior mi nga xam ne nag CNG dafa génne verdict ba recours ba ko Tafambar joxoon sa Alioune Sèye Junior ñàkk combat ba CNG confirmé ndamal ka nga xam ne ni wala bokk mu dindi la Alioune Sèye Junior amoon la ko arbitre joxoon te géew ba ne Tafambar yaa daan Alioune Sèye par quatre appui Tapha Mbeur nag wala alin Seye nag moom jamono jooja moom jàpp na ne daal loolu moom intéressé wu ko li ko intéressé daal moom jàpp na ne moom maa daan Tapha Mbeur ci jëlli bu leer nañ boo xam ne kenn laam-laami wu ko amul recours amul dara waaye moom la CNG def moom nee na loolu daal li leer ba leer moom la mu jàpp mooy daan na te daan na mag ja nag moom CNG dañu koo woo muy ki nga xam ne mooy amaja ca daw ba mu dawoon dugg ko ca jiw ba waaye daal yëglikaay baa ngi ñuy xamal ne day ah amaja nag mu nga indi ay leeral bay ca des maanaam daal woote ba nangu ko wuyu ji yëglikaay yi ñoo xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne moom itam bëri woon nañu daan ko fi sam samedi jiinu génn muy aada faas wala boog bébé bismi moo daanu aada faas daan ko bébé bismi nag mu nga xëy di wax ay erreuram ya nga xam ne nii daal moom la def ba tax mu ñàkk combat ba keneen koo xam ne moom mu nga ca Leewtoo TV di fa wax moo di booy fay booy fay nag moom indi na ay leeral nee na làmb moom xalaatu cee nekk naan day jàppaleeti kenn ak ku mu mën a doon li mu nar daal mooy ne ci boppam taal boppam maanaam moom mbirum bopp sa bopp daal la ko bëgg a doxe fi mu nekk nii parce que nee na nag heure bi daa jot te moom jàpp na ni la nekk na mbër moo xam ne daa dafa war a bokk ci lamb am ay moromam am dimbali ay waajuram waxi booy fay la ñëw na ci carrière am ak takkub jabaram mu mel ni ki nag loo xam ne tam wax na ca mooy maye bi ci li bi nee na moom mayewut tey suba waxi noppi ndax nag day liggéey waaye li leer ba leer ten war caa taxaw mooy takkum jabaram jabar ma booy fay wax booy fay daal nee na léegi mu takk jabar booy fay daal nee na xam na ka muy takk booy fay daal ni nu juboo daal dina am kon daal yaakaar naa ku yebu xaar booy fay yaakaar naa ne est-ce que dina génn ci mois de janvier bii nu ne ci 2020 bii boo sàggani de booy fay dana ci amub séet kon xanaa mu wàll sama gars yi rek rawatina yàgg mar booy fay ngir yàlla boo takkee lañ la ñaanal ba nga takk ñëwal nga takkal ko yàgg maar ndax mu mën a takk ndax nag maar takk jabar jot na de maar meer bi soxla na ku koy tàngalal ndox di ko toggale ceeb ak i affaire maar takk jabar jot na mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène nu si jàngatu arène bi Babacar maa lay nuyu di la ziar naan la sa seen sa baax na tey waaw merci Ndeye Coumba maa ngi lay fay di nuyu ñu ñu suivre ci Leewtoo TV yëpp waaw sañse bi moom comme na ma ko waxoon rek borom siso door bee fii jaar mooy rim kaa couture borom Touba Sandaga taal bi sëñ Abdou Karim Mbacke moom moo fi jaar ci ay ci yére dàll yi tamit masaar la masaar sow bu Leewtoo fii moo ma jox dàll yii nii macha allah kon mooy nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi jox baaw kër yére mu koy sol ak ay dàll ñoom Mor Diouf Petersen ñoom Aliou bu Yankaaw wulli tamit bokk na ci ñi may jox ay yére may sol ak sax ball Gaye de mbay guy gi bari nañu maanaam ñuy jox kër ak Salfay Marsetilène xam nga su ma dee lim damay waaw du ma fi jógee ak kot su jabong ca Paris ñi ñëpp bokk nañ ci ay nit yoo xam ne nii ñu ngi jàppale Babacar ci liggéey bi te ku lay sotle ci xeex nag xëy na bëgg na nga gañe kon boog Babacar sant yàlla ni ñëw nag si sunu lam sunu lam dafa xëy nag dala continuer tamit interview mu commencé woon dem euh, ak euh, Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass nekk directeur technique écurie Fass moom nag ñëw na nag ci combat royal diggante Modou ak euh, Ama Baldé nee na bi daal dañ ko war a tege ni ci suuf nu xaar lépp daal ba Luc Nicolas génn nee nag moom su nekkoon nag ay con na ay yu mu jox diggante Modou Lo ak Ama Baldé di leen wax nañu bàyyi entraînement yi bàyyi lépp bu ñu yàq seen xaalis parce que Nicolas aussi balaa muy dugg ci biir kaso bi bëggoon taxawal Balla Gaye ak ki nga xam ni mooy Boy Niang 2 Babacar. waa Tafa moo xëy wax que ni li fekk mu ngi ci kaso bi combat bi moom nañu jàpp ne du am waaw loolu nag yaakaar naa ne xel war na koo mën a nangu parce que tamit am na loo xam ne nii ah wax naa ko léegi tëgg tama mënta ànd ak euh, wokkatu de day xaw a jafe yaa ngi dégg parce que moom mooy lig li ko laay en ko jiite structure am taxawal combat moo xam ay partenaire am am na loo xam ne nii moom rek moo ko mën a gérer boppam bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax est ce dégg loolu nag su amee mu nekk tey foo xam ne nii dañuy ñaan yàlla mu génn fa ba ñëw tëgg kombaam yaakaar naa su fekkente ne dafa nekk foofu datu komba ba jot te génnul pour komba bi am dina jafe loolu moom ku ne war nga ko mën a xam parce que olof ne ne bët du yoonu mi nga xam ne la bopp attal ñun nag dañuy ñaanat comme ni ñu doon ñaane suñu borom bi nga xam ne moo ne ñaan leen ma may leen ndax lu tax mooy komba bu askan yu bëgg la ndax ku ne xam ne ne Ama Baldé am na loo xam ne nii bëgg na bëgg na ko bëgg na koo wane ci làmb tey bëgg na ko wane mooy lan daan Modou loolu la bëgg parce que tamit dafa ñafe ba yegg si nag yaakaar naa ne fi mu nekk nii moom tey chance bi mu am ci làmb bu ko desee ti mën na sax mooy daan Ama Baldé parce que lu mbër di prouver ci làmb prouver na ko ndax ku xeex ñu ne mënoo nekk roi des nga ñafe-ñafe ba xëy dégg roi des defe naa kon moom amatul sax tey lu mu naan moom lay prouver mais nag cest à bu ne am na enjeu combat boo taxaw rek ci sa kanam am na lu la ci war ndax victoire ku nekk ko bëgg li ci des mooy diggante ah Boy Niang ak Balla comme ni Tafa Gueye wax ne bëggoon na ko finaliser loolu tamit xam naa ne lig moom homme de défi la moom luñ ne mënta nekk moom dana fexe ba mu ne mais nag comme yàlla dogal na lii jaam ak i pexeem yàlla buur bi mooy dogal mais ñu ngi ñaanal daal yàlla muy dogal te am kàttan yàlla na ko yàlla génn ci lii ci lu dul yàgg ba mu ñëwaat ci ñun parce que itam comme la ma doon wax rek nit ku baax la te ndey kumba sëñ Moustapha Sy wax na ko mustarsidin wala daal nee na ku la gën xol moo la gën kon nañu fexe suñu xol yi mu set ñu yénente jàmm loolu daf ñuy noppal ku ko def rek Nampte mu ngi ñuy xalal xamal ne euh, est-ce que Balla Gaye moom ak staff am duñu euh, duñu duñu jàppante wala boog def séparation parce que kenn si ñenn si waa staff école lutte Balla Gaye ñoom bëgg nañu combat ak Boy Niang mais moom ak ñi nga xam ne moom la jox lépp maanaam famille euh, Aziz Ndiaye ñoom d'accordu ni si combat boobu noonu Babacar. waa Balla day li ma xam daal mooy moom yaakaar naa ku ne dégg na ko bëri dem ci Leewtoo TV la mu wax bañu ma bëri ak Boy Niang waaye diw ak diw ay samay adversaire newuma doo ma wax du ma bëre ak mbëre benn yoon laa ko ma sa wax te ba ma ko waxee réccu naa ko muy sama diggante mu te damaa meroon te dootuma ko wax xam nga Balla moo wax loolu Baye Ndiaye génn na tamit wax ne ñoom tànn nañ seen adversaire bi ñuy bëreel ba kan la ñuy bëreel échange yi dégg kon tey li nekk mooy nit ki nag mbër mu ne am nga staff parce que Balla tey fi mu toll ci lam yaakaar naa ne li ci li mu di ko wax ak jëflante bi ñu gis mu koy def léppam Aziz Ndiaye la ko jébbal ah olof nag ne kenn du joxe bopp ci làmmiñ terewul nag comme ñoom ñoo bokk mbir mi nañu waxtaan ñoo bokk géejawaay ñoo bokk mbër mi ñoo bokk dëkk ba nañu waxtaan ba xool bu dee jël booy Niang dañu jàpp ne moo gën ci ñoom fa lillaahil amdu bu dee am benn moo gën ci ñoom it fa lillaahil amdu mais lu may wax rek mbooloo daal ay nit daal bu ñu nekkee seq meen mbir moom lay gën mooy nañuy waxtaan waaw ndax nag réeroo moom amul njariñ réeroo moom boo ci mën a dégg itam du ñàkk nag si àddina waaye bu amee ba pare nañu jéem a nag ku ne bës sa xol ngeen waxtaan et nañu waxtaan xool ba xam journal bi tamit sunu lamb ngi xamal ginnaaw bu CNG joxe ndam li ak nga xam ni mooy Tapha Mbeur te nag eh, ki nga xam ne mooy adversaire bi nga xam ni si stade ba keroog joxoon na ko ndam génn daal di wax moom nee na daan na ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur même su fekkee ne sax CNG bi jël na victoire bi jox ko ki nga xam ne mooy adversaire am man day kumba bi lamb lamb jooju amee ba mu jeex am na ñoo xam ne nii dañu far ak Tapha dañ may woo téléphone ne ma Tapha Mbeur moo daan yow loo gis moo daan ma a leen xam nga lu ma gis la arbitre ba jël comme décision action am na ñu jàppante wër ndombo am ñii ne kat app ñii du kat app arbitre suuf la ñu bërewaat Alioune Seye daan ko ci lu leer ci géew ba ñu gis ko ma ne ko loola am nag ci sukkandiku comme kii dugal na recours am bis bu recours ba génn lu recours ba àtte ma la ñu ne te réew mi daa am lu mu mënta doon am na ay yoon yu koy doxal la nga xam ne nag moo amoon jamono jooju ba Alioune Seye yóbbu victoire am daan laa sukkandiku woon mais tey xam nga ci la la sukkandikuwaat li CNG bi def man dama jàpp ne actuellement Tapha Mbeur moo am ndam ci kaw Alioune Sèye Junior parce que recours lañ dugaloon pour ñu àtte àtte nañu ne yaa daan parce que kii def na kat appi avant mu lay daan fële kon loolu man ci laa nekk tey kon Alioune na xam ne sport lay def na dem liggéeyuwaat yaa ngi dégg sport la parce que ñu bëri sax xalaatoon nañ keraka ni combat bi waru mën a yegg foofu diggante mag Tapha Mbeur mais terewul yegg nañ fa yaa ngi dégg yaakaar naa man dama naan ko warul sax a wax ah démérité wul ah, Alioune Sèye Junior wax dëgg yàlla parce que bëri nañ combat bu neex dafa am nag ñoo xam ne ñoo yore kuréelu làmb ji te ñoo la may bunt bu toll ni bu fekkee da nga ñëw ñu àtte la neexul am nga droit de recours bind sa recours dugal ko ñu àtte la loo am nga jël waaw keneen ki nga xam ne nag àtte nañu ay mbiram moom mooy Amadia Amadia soo ko déggee euh, soo ko soo leen ko déggee kenn kenn ki nga xam ni mooy liggéey ak promoteur yi mooy gérer lépp loo xam ne si wàllum organisation bi si biir géew bi Saint-Germain nag ko convoqué woon mais moom li mu expliqué nee na 10 heures lañ ko convoqué woon midi la ñëw mais bi teg na daan si moom nee na dañ ko tere atu yàlla boo xam ne du dugg si biir géew bi maanaam du ranger ay sac du dugal suuf du génnee suuf Babacar ah loolu dina métti ci Amadia métti ci promoteur yi ndax tamit mën naa ne homme de confiance promoteur yi la ci côté organisation yaa ngi dégg mais nag comme lu may wax rek mbir mi daa am ay règle dafa am ay règle bu arbitre soufflé moom bu mbëri ne ci combat kenn amul droit jóge fële ñëw di dugg ci géew wala soo ko defee moom ah ay sanction man na la ci fekk yaa ngi dégg xëy na nag moom looloo tax loolu fekk ko ci bu ñu la convoqué tamit comme dañ la convoqué pour war la déglu 10 heures yow sama waay fexeel ba 9 fekk la fa rek. yaa ngi dégg waaw mais boo toogee nag it ba ba kuñ ne 10 heures nga toog ba midi ah dafay xaw a doy waar waaw mais ñun suñu sañoon tamit seen ñu ñaan leen rek ñu oyofal daan bi ah wala ñu tegal ku ñu defoon ko ko sax avec sursis parce que tamit ñun xama amaja yàgg nañ koo xam ci lam xamuñu ko ci yu mel noonu wax dëgg yàlla mosuñu koo gis c'est la première fois ñu gis ko mais deret moo fort parce que ku ne xam ne ne moo ko Alioune Seye ñoo bokk ndey ak bàyyi deret dafa fort yaa ngi dégg mais nag xëy na ñu ngi ñaanal daal ñu yore règlement et discipline ñu defal ko ko avec sursis rek parce que tamit mu ngi liggéey promoteur liggéey boo xam ne bu am am solo te promoteur acteurs yi tamit ci ñu bëri ci ñoom wóolu nañ ko macha allah. Babacar nag suñu demee fee nga xam ne mooy Leewtoo point net foofu nag ñi nga xamal ne tey la jàkkaarloo bu njëkk diggante Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Siteu fee euh, bu nekk si corniche bi xam naa nag jàkkaarloo bi nar na neex bu baax diggante Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Tarkinda. waaw du man a ñàkk dama ne sànq piment bi ak Tarkinda bi du man a ñàkk waaw piment wu parcelle bi ak Tarkinda wu jàmm gën bi parce que lu tax mooy la ma waxoon rek ñoom ñaar. dañoo bëree ba dabante am ku ne xam ne ne papa jiitu Siteu si làmb jëkku koo dégg daa jëkk koo dégg daale waaye Siteu itam dafa xeex ba ñëw bokk ci ñoom wan leen ni maa ngi nii te li ngeen bëgg laa bëgg li olof di wax li mbëtt mi bëgg li moom la baar bi bëgg yaa ngi dégg loolu moo waral tey Pa Abdou Fall nag leen kon kaa leen ma boole leen ngeen bëre beneen bi ci des mooy bala ngeen a bëre nag jàkkaaroo dina am ngeen waxante kon tey daal yaakaar naa ne ñu xaar ci Leewtoo TV jàkkaarloo boo xam ne dana neex loolu war a dox ci diggante Siteu ak Papa waaye ñu ciy ñaan rek ñu def ko ci sportivité ak fair play ndax dama naan ñoom ñaari mbër yi bu dee ñoom rek la problème mën na bañ am mais ñi leen di indi itam nañu ànd ak sago ànd ak ak dal xam ne promoteur bi xaalisam la fay fa ñuy dem itam lieu la boo xam ne nii joxuñu ko ko gratuitement da ko fay ay nit lañ fay fekk ñu def fa defin boo xam ne daal suñ fa jógee lépp day rafet quoi ñu jeexale na ak ki nga xam ne mooy booy Faye booy Faye dafa euh, sekk waxtaan bu neex ak ki nga xam ni waa Leewtoo fii si micro euh, Babacar moom na wax na nag mariage am nee na daal Babacar suba la fas yéene takku soxna ak benn sportif la wax na tamit si carrière am euh, par rapport ak aussi combine yi am si Lucien moom nee na mayewul tey mayewul ëllëg ndax nee na képp koo xam def nañu mise mise bi bëri lool soo daane tamit sa kër nga yóbbu moom tamit dafa bëgg di yóbbu si kër ga Babacar. waaw waaw ah suba lay takk soxna loolu de alhamdulilah kon Boy Faye macha allah a ba pare takkaw sportif moo tax ma ne ko. wit bi man waaw wit bi woman. rig ah, fay yaa nga ca loolu mooy un plus un égal deux rek. dara du ca manqué waaye nee naa ko buum gi nga takke boo paree gi ngay takke mu abal ma ko ma jox ko yàgg maar ndax mu takk du mën a ñàkk yaa ngi dégg li ci des mooy comme lu mu wax tey ci wàllum combine boobu mais sëy boobu ko yàlla yàlla defal ko ci jàmm ak barke barke yonent bi mooy góor góor moom takk soxna yàqu ko la ma teeloon waxoon rek teel a takk soxna teel a dem daal teel dugg néegu góor dafa baax si góor mais li may waxaat mooy que ni rek li mu wax ci maye bi ndax loolu gis naa démb fan si club Babacar bi def ci débat bu rëy maye bi te ñoom ñu ci bëri lutte simple dañ koy suivre cent pour cent ñoom jàpp nañ ne mbëri même buñ ne duñ mayee sax la ñuy wax du doon lu ñuy gëm parce que ne ba ñuy mayante yow ko xam yaa ngi dégg parce que ne li ñu seq des fois moo tax mais ñoom dañu jàpp ne bu jëkkoon loolu am woon si làmp jamono ñoom Yékini ay ñoom Aliou Diouf Yarwaago ah ak mbër yu mel ni ki noonu ñoom jaan jilaas yaa ngi dégg ñoom Bouba Moundé ñoom jàppoon nañ ne jamono yooyu ah ak ñoom yaamu sarrofa ngi ne nañ jamono yooyu boobu loolu amuloon parce que boobu dëkk bi ñoo lay ngemm ndey Kumba Fane la nga dem bëre ji est yi dégg ñaanal la jox la nag kàddu dëkk bi ne na ñi ma woo dem nan da ngay combine ak lu waaw da danga da nga ak lu mën a xew waaye léegi nag xëy na làmb ji la ñu dénaturé indi ay xaritoo ay mbokko te sport pour man yooyu xaritoo am na solo mais sport bu jotee nañu def sport ci cadre bu boo xam ne bu professionnel la que le meilleur gagne après yàqul dara ci diggante mais mbir mi bu ñu ko génnee ci cadre sport mooy yàq li mu yàq mais bu ñu ko tegee ci sport kese war nañoo mën a daje derby di am parce que derby bu ñu ko jëlee ci làmb maanaam bu ñu ko jëlee ci sport sax lay wax en général yàq nañ ko Real Barça milliards yu bëri lay coûter saa yu match ba taxawee dañu koy jënd alal. PSG Marseille. OM Paris noonu loolu ay derby la derby kenn du ko yàq du tere nag ñu dëkk ci jàmm waaye dégg United ak City noonu lay demee ah noonu la fa demee. waaw kan nag si kàddu match football yooyu lañ leen di tàggoor leen jox dig daje leen di incha mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane di nuyu Chéri Khadija di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou jàmm Gueye papa yi cité di nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck Chéri Chéri Asek maa ngi koy nuyu nuyu tamit sama Baye Fall Alioune Ndiaye maa ngi koy nuyu aussi depuis Italie di nuyu samay doom maam Diarra Penda Grand Fallou Rokaya bébé Moussa yi ñëpp yaa ne si bi Ari Diouf tamit maa ngi koy nuyu naan ko te sa musoor baax na Babacar. macha allah li mu sol rafet na trop tey moo may defal maquillage.